buzz du web ab euh, buzz du web buzz du web buzz du web am na bis yu noonu da ngay koy rek botom wala doo mën a ti prononcé ñàkk a melaw koy indi ak fatiguement mhm. fatiguement international waaye Ndiaga Ndour yàlla yàlla yàggal taxawaayam ci télé bi kenn du yow Ndour yow koo gis mu sonn sax bi ko ne noppal Mbodj Ndour. ah doy na day baat Ndiaye. non de. yàlla na sa yàlla na sa taxawaay bi. Hmm. voilà maintenant bisu bés du web. buzz du web on commence par une photo boo xamante ne day def buzz comme euh, comme ni ñu koy waxee Pape Cheikh Pape Samba bu fekkee mun nañ gis photo bi c'est nit koo xamante ne dafa doon waaj a suicidé wu en fait donc euh, c'était en Turquie. su ko sudee. non pas su ko sudee donc moom lañ entouré en ah. rouge euh, nit koy suicidé wu normalement lan la ñu war a def. war ñoo tàggoo sax. non non tàggoowul mais ay Pape ay ay Pape Cheikh. yu kii nag xar jàpp ko moom xaru nga ko. <laughs> ma reetaan la waay xaru na en fait xaru na après bi ñu ko yóbbu hôpital. mu dundaat. quelques heures après mu dee. mais normalement soo gisee kuy xaru ba ñu woo police dañu war a ñëw. foo waxtaan ak moom aider ko pour mu yeggaat. Pape Samba indi ñu beneen photo bi on va voir ce que le policier est en train de faire. selfie lay jël. di ko fa di foto bopp ci kanamu kii waaj a xaru donc ñu tuddee affaire bi selfie de la internet yi ñëpp dañ ko doon xas parce que yow yaa ñëw pour sauver nit ki di xaru amoo dara looy def lu dul jël sa téléphone taxaw di selfie. mais a pas lui qui fait ça a da ngay romb bi. mooy foto da ngay filmer wala da foto wala nga filmer sans pour autant exactement nit ki bi ñu demee démb bi ngay xeex <laughs> ah, la foto <laughs> ah, bi. waaw xeex ma dama foto bi. Ah, xeex de. am na xeex de ba aroon say baaraam Papa Boisdé yaa ngi mettre xel. j'ai les photos naa ko jox waa waa internet comme dañoo bëgg lu ñu wax. <laughs> bu dee am nga photo donc Pape Cheikh policier bi dañ ko dañ dafa am benn enquête boo xam ne dañ ko ouvrir si moom pour xool ba xam vraiment lan la doon wax. waa ji parce que ku am xol bu xaw ma xol bu bon na xaw ma dëgër xol. xaw ma mooy li Chérif wax barki dem rek mooy méféw euh, nouvelle euh, nouvelle donc euh, entourage am bi ñu defee enquête bi dinañ ko moom il est accro au selfie et que tout le temps foo fekk mi ngi photo mais quand ba nit di xaw nga mën a teg sa téléphone. donc enquête bi tijji nañ ko et puisque yàpp. ak ah, Khadija mi ngi doon bañ ko ko joxe exemple mais tu es l' exemple parfait déjà. mais quand non mais bii moom duma ko def Pape Cheikh quand ne dañu accro avant ngeen di dem di seeti psychologue am na benn application boo xam ne dañ ko créé temps yi pour wàññi quand même euh, degré d'attraction bi nit yi am ci seen téléphone ça s'appelle moment track how much you use your phone. mooy ñaata bu ñu concentré wu ci appli bi dañuy gën a dañuy gën a. utiliser seen téléphone non non justement doo utiliser téléphone bi parce que application bi benn yoon nga koy télécharger benn yoon nga koy activer doo ci duggaat parce que loolu mooy euh, loolu mooy base bi parce que bu dee tout le temps da ngay gis application bi da nga koy bës doo ko gis boo ko boo ko télécharger léegi chaque jour daf lay defal ñaata heure nga utiliser sa téléphone daf la koy envoyer ak yan endroit nga nekkoon bi nga koy utiliser donc tu vas savoir ba xam bi nga nekkee ak sa jabar nga utiliser sa téléphone pendant deux heures trois heures ou est-ce que bi nga nekkee resto la wala est-ce que bi nga nekkee bureau la da nga non non day day dafa ànd ak euh, GPS dafa dafa am day day day identifier la maison da koy xam les GPS même dans la salle chez toi dans la chambre là oui ok d' sa GPS activé ko nga laaj sa GPS léegi. dina ko fone donc endroit bi ban nga nekkoon bi ngay gën a utiliser téléphone bi ça te permet de bu dee dañ la ne par exemple 11h nga utiliser si 24h sa téléphone. war na def loo benn technique tu te rends que yow li nga koy utiliser bëri actuellement application bi si iPhone rek disponible et ça coûte dollars donc dinañ ko développer pour yeneen téléphones yi pour aider vraiment nit yi ñu lâcher un peu lâcher prise par rapport au téléphone j'espère que ça va marcher pour tout le monde bu ñu jógee foofu dañuy dem surtout pour moi mm. surtout pour moi parce que je suis vraiment accro au téléphone mm. bu ñu fa jógee ñu xool naka la ñuy defee clim fait maison donc euh, bu fekkee ñiy seetaan fii waa plateau bi wala ñiy seetaan amoo leen clim xool leen naka ngeen koy defaree par exemple yow waaw comme man comme yow am nga ba pare soxla woo ko donc ñiy seetaan ban matière lay utiliser ni yi ñuy enveloppé ay frigo moom la ñu tuddee booy. plexi plexi polyester lay jël jël ay bouteilles bënn ko dugal ko ci biir ut ventilo dagg benn trou bu tolloog ventilo bi dugal ko ci pare ut so glace def ko ci biir léegi bu ko tëjee day branché taal ventilo bi mu nekk genre kii. Mhm. donc ngelaw bu sedd la génne parce que ventilo soo dee xool même mécanisme la et puis boo dee xool ventilo su fekkee da nga ko taal noonu kese sa kër mu lay upp finalement ngelaw bu tàng mooy génn donc lii bu fekkee am nga polyester jarul sa nga koy jënd parce que que ce soit télé wala frigo wala euh, ah, matière euh, ventilo bi si kaw glace timale ko glace bi ah. léegi bouteille bouteille ndox yi boo ko jëlee da ngay bënn ñaari côté yëpp muy génn ah muy génn ci. bënd donc voilà bu sedd bi bu ko uppee bu uppee glace bi. <laughs> xoolal good fine rek yéen a ngi naan la kii na ci donc voilà ñun ñi amul. kii na ci ndeysaan boo eggee sa kër nga defal ko. <laughs> am na solo <laughs> non am na solo sincèrement ah. tàngaay bi da ngay tëdd ba guddi tàng yeewu parce que ventilo bi ngelaw bu tàng lay. donc clim bu bees mais moytu leen quand même fil bi laalante ndox bi. Hmm. attention parce que loolu moom. ah non du ko laal mais attention quand parce que <laughs> damay bañ ngeen électrocuté seen bopp Pape Cheikh révolte xar yi laa doon wax sànq xar yi bañ ko leen tabaskee regardez ce qu'ils font. dafa réew de dafa def kay ah kii ku mu yàpp <laughs> xam naa bu xar yëpp defoon nii di kenn <laughs> que moom loolu daal mu topp la noonu la actuellement sur internet merci bisous euh, d'autres folies euh, yeneen folies yooyu ñu indi lundi euh, matin ci yeewu leen ay